عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل عن أبي سعدبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها xadiis yëpp dagan lekk ak yàpp fas kenn ci asmaa'u radiyallahu anha mu wax ne rey nañ ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa fas fekk ñi nga Medina ñi lekk. wéral nañ fas ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ca Medina ba pare lekk ko gis ne liñ ci njëkk jànge mooy ne fas dañ koy rey dañ koy rendi du mel ni gëléem gëlëm moom loj rek lañ koy mën def gëlëm ku ko rendi du dagan ba tey tegtale na tim ne duutoon loraange moo ko waral ndax waxul dara luy tegtale ne dañoo loroon ba amuñ leneen moo tax ñu lekk fas loolu tax ku mel ni imaamu Shafii rahimahullah daganal lekk fas tënkut ko ci dara imaam Maalik nag wuuteewut ci ne dafa dagan ndax li ci rot ci xadis waaye moom daf koo sib te li tax mu sib ko mooy ne dafa wax ne fas njëriñam mu ngi xëppee ci jihaad buñ bërilee luñ koy rey di ko lekk kon dootuñ am doole bi nga xam ne moom la yàlla sant wa aiddu lahum mastataatu min quwatin wa min ribatil xayri turhibuuna bi aduwallahi wa aduwakum ba yàlla di wax ne na ngeen pareel seen noon yi ay ngànnaay ngeen leen di ragallooxee dafa tudd fas ci boppam nga xam ne kon moom lañ doon gën a jëfandikoo ci wàlli xare mel na ni bu fekkoon ne xikma jooju rek moo tax kon keneen mën naa wax tey xare yi jëfandikoo woon fas lu may lu lu néew ndax euh, tariq taqlidi wax nañ ci beneen xikma wax ne fas lekk yàpp fas dafay wowal xol loo tax ba tey ñoom ñu sib xool luy xool nag jarta bëri li jarta jege lu may ci loraange moo taxit ata ni xadis ji isma waxe ko rey nañ fas ci jamono yonent bi ci Medina lekk ko dafay teg ci lu wutoon loo xam ne nii lu bëree xam la waaye daal ñi daganal lekk fas tënkuñ ko ci dara ku mel ni imaam Shaafi yi ci lii la ko teg ku mel ni imaam Maalik nag mu ko teg ci sib ko ngir fas ci lee lañ koy gën a jëriñoo fas lu barke la yonente ko wax alxaylu maaqudun fi si alxayru te loolu amul benn sikk na li ko ko jox mooy jëfandikoo gi ñu ko doon jëfandikoo ci jihaad kon mel ni seet seet fiqhul awlawiya ngir mu nekk ñi seet ci lam gën a xeeyee ña def ko ci loolu ci bunt boobu la ko sib di imaamu Maalik di sib foofu lay tukkee moo tax القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ñoo xam ne di taar la rek pour ñu koy war ñoo xam ne ñu ne taarab ñi nga xam ne buñ ko lekkee mu rewetal seen yaram yonentu bi aaya gi ma aaya salallahu alayhi wa sallama rey luy tëj luy dund ngir rey loolu mooy lu ñu war a rey nga koy yàggal téye ko yàggalal ko rey gi tëj ko ngir rey ndax loolu ci mbugal la bokk yentu aaya na ko luy dund rek la wax lu xeloo lu xeluwul mu ngi ci tukkee na ci ibnu amar radiallahu anhuma mu ne dégg na yonentu bi salallahu alayhi wa di aaye tëj bàyyi ma wala lu dul bàyyi ma ngir rey loolu mooy luñ ci war a rey gaawee rey gi rek moom moo gën loolu yonentu bi salallahu alayhi wa wax na ne booy booy booy rey na noppal li ngay rey digale na digale na nga daa sax sa paaka loolu yëpp ngir bañ rey gi yéex li ngay rey di di di gën a métti lu moo tax tëj dara ngir rey koo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko aaye giñ xaraamal lekk yàpp mbaami kër ak daga nag lekk yaami yàppu fas tukkee na ci jaabir bin abdillahi radiallahu anhuma mu ne yonentu bi salallahu alayhi wa sallama nañu ba si xaybar lekk yaa yàpp mbaam mbaami kër yi mu yolombalal ñu tim lekk yàpp fas baatam mu yolombalal ñu lekk yàpp fas sax dañ ci def ci jëlee ne ba tey dafay dëgëral li nga xam ne moom la imaam Malik wax ne bu daganee wut loo xam ne nii dañ ko tinki mu war a bëri ndax yoolombal dafay delloowaat yëf yi baatab yoolombal dafay delloowaat yëf yi ne ci buntab loraange la ñi nga xamee ne ku xam ne nañ lekk eh, eh, médd daganul waaye eh, yoolombal nañ ko koo xam ne nii dafa loru ba xiif war koo rey ndax mu lekk médd daa bañ ko lépp mooy loraange gi ci nekk te loraangeeg xiif mën naa toll foo xam ne mooy gën a garaaw loraangeeg lekk mu ëdd bu boobaa ñi daganal ko ni moo tax ñu wax ne tim yàpp mbaam am na ñoo xam ne dañ koy seetal xikma yonentu moom lu lu tere rek baaxul xamee lu tax ak boo xamul boo xamul li ñu ne yàpp mbaam yi li tax mu tere ko mooy yàpp mbaam mbaam moo gën dof ci ci bàyyi may lekk yàpp mbaam fay dof loo nit fay fay naqadi loo nit xel waaw lekk yàpp fas nag ñu ne moom fay wowal wowal balaa de nag man naa dem ba gën a gar moo moo gën a garaaw waxu moo tax moo tax mu nekk loo xam ne nii dañ ko xaraamal moom ba titi waaye li gën a wér daal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa xaraamal nag bu tuddee xikma bi bu tuddee xikma bi borom mën nañoo baat ndax leer ak njub ak leer ak topp yàlla dana leeral dana jox nit ci xam-xam buntu loo xam ne kenn faram-fàcceelu ko ko waaye yonent bi sallallahu alayhi lu mu tere daal baax bunta mu xaraamal lekk loo xam ne dafa am sell ci gar yi li nga xam ne dafa am sell di lekk med yi dañ ko xaraamal كان جاء به ثعلبة الخشني رضي الله عنه mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na lekk lépp loo xam ne ni dafa am sell ci gar yi tere tere nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya na ko ndax aayeeg xaraam la wala aayeeg sib la tere na ko moom sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp lépp loo xam ne ni dafa am sell rek ci yaay xaal yi xadisam eh, daganaa jëriñoo derab loo xam ne dafa médd abdullah ibn abbasin radiallahu anhuma nee na yonent bi sallallahu dafa romb ab gàtt boo xam ne médd la yonentu ne àllu leen tere jëriñoo derab déndam ñi ne yonent bi sa alayhi wa sallam ah gàtt bu medd la di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li xaraam mooy lekk ko waaye kon xaraamut ñuy jëfandikoo deram ci loo xam ne ni der bu fekkee ne dañ koo wulli bu boobaa der boobu donte ci gàtt bu medd la jógee nga xam ne lekk ab ndawalam xaram na du tere der boobu ñu mën koo jëfandikoo mm-hmm. loolu mooy tax gàtt bu ñu jël mën a jël buñ buñ gisoon xikma boo xam ne ci ci yaxab gàtt bu medd nit mën na koo jëriñoo ci leneen ba tey ci bunt boobu rek lay lay duggee waaye lekk ko mu ne lekk ko lañ lañ xaraam عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها أكلوا كتاب الأضاحي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن صبح قبل قبل فإنما هو لحم قدمه لألي ليس من النسك في شيء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرفة قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي أنفستي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تتوفي بالبيت فلما كنا بمنا أوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السماء قد استدارت هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر والذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس, البل أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت مرتين kenn ci maymuna radiallahu anha mu ne janax dafa tàbbi ci diw ñor dee ci diw gi ñi laaj yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne na ngeen ko sànni ak la ko wër te ngeen lekk seen diw ñor ba waxee mun lu medd jarax moom bu meddul sax du lu ñu lekk bu tàbbee ci dara nag loo xam ne dañ koy lekk lam wër moom la ñuy di loolu nag dana bàyyi leneen loo xam ne bu fekkee ne xam nga ne yàgg na fa ba paase na lam wër loolu bu boobaa waxuñ la nga lekk ko ndax biñ koy amele ci lim wër mooy àggagut lu jeex itam man a laalee lu may lim wër waaye buñ demee ba xam ne itam laal na lu li lim wëru boobaa lépp lañ war a baax te na ngeen ko sànni ak lim wër te ngeen lekk seen diw ñor te ngeen lekk googu du lekk du digle yi waral digle yi dagan naa lekk rek la waaye boo demoon ba nga xam ne yow am nga leneen nga xam ne seexlu nga lu janax dugg ci lenn bu la neexee nga sànni lépp ndax diw ci boppam lekk diw ñor warut kenn diw ñor gu dara dugut sax lekk ko warut rawatina boo xam ne dara am na lu ci dugg waaye ci li dagan ci dagan na nga lekk ko loolu lay jàngal buñ tëb waxtu rey tabaski tukkee ne ci Baraa ibn Aazib radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne lu lañuy li tàmbalee ci suñ bés bi maanaam bési tabaski mooy dañuy julli buñ jullee ba pare ñu dellu ci kër yi loj ku def loolu daje nga suñ sunna ku rey nag njëkk loolu bu boobaa yow yàpp rek nga am boo jox sa waa kër waaye du jaamu yàlla ki tabaski xadis yi tudd na loj tudd na reen ndax mën nañoo tabaskee lu ñuy loj nag mën nañ koo rey mën nañ koo loj gàtt gëléem dañ koy loj rek bu tuddee rey jëm loolu mu jëm ci gàtt yi nga xam ne moom la ñuy rey nga xam ne moo gën ci tabaski ci tabaski gàtt moo gën xaragan bay tegu nag tegu gëlem tegu waaye bu fekkee ne ca ca ca màkka la ca hadiw kuy def hadiw gëlem moo gën nag tegu xar tegu bay door a ñëw xadiis yi yéexee daga nag yéexal tawaaf ci xaj koo xam ne dafay aj mën naa yéexee tawaaf wër kaaba gi xadis tukkee na ci aïchata radiallahu anha ne yonent bi salallahu dafa dugg si fekk moom aïchata mu am mbërëg bi ñuy tolloog saraf ci buntu màkk njëkk ñuy taab bi màkk jàngoon nga ci xadis yi passé na foofu la xabru Maymuna nekk radiallahu anhuma aïchata ba tolloo foofu ñuy aj si mu toll foofu mbërëgam feeñal muy jooy loolu xir gum xir ci diineem la foog ne mbërëg bi mën na koo yàqal yonentu ne ko lu xew da ngaa mbërëg nafis si nifaas mooy gësin dereti njureel waaye dañ ko jëfandikoo ci mbërëg moo tax yonentu ne ko ngaa mbërëg mu ne waaw yontu ne ko loolu lu yàlla bind la ci jigéeni doomi aadama defal lépp lu kuy aj di def ba des wër kaaba mu ne bañ nekkee minan ñi indi yàpp nag mu ne ma ne lii lan la ñi ne tabaski gi yonentu tabaskilee ay waa këram nag loolu nag am na wax ndax xam nañ ne kuy aj moom du tabaski kon li gën a lim gën a niru daal mooy ne xët yu bu mu defal waa këram bi yonentu nag ajam moom xam nañ moom xët yam lan la woon ndax téeméeri gëléem yi nga xam ne naa Ali moo ko jëlee Yemen indil ko ko moom la rey ci yu moom la loj juróom benn fukk ak ñett yi nga xam ne moo tolloo at yim dund moo ko lojal boppam yi ci des Seydina Ali moo ko mottali jël nañ ci kal ci gëléem bu nekk jël nañ ci yàpp woo boole ko def ko ci benn kaleera nga xam ne boo mosee ci ñaam yi sax mel na ni lekk nga ci sa ci gëléem yëpp ndax bokk na ci sunna la bu fekkee ne danga rey xët yu nga lekk ci jafe na tey lu may boo amee ku lay dimbale xaw say ñoom góor lañ ci lool boo ree boo leen joxee sa xaalis ma dañ laa defal defal la ci waaj indi la mën a bu dul loolu daal booy reyee xet yu yow joxe xaalis rek jënd coupon rek nga ci am ñi ray ko yóbbu ko fu ko mën a yóbbu ci alam islaami ndax ray bi mu dajee foofu nit ñi dañ ci daan sonn bu tegte leen it kon mën nañoo boole e, ay nit juróom-ñaari nit mën nañoo boole ci benn benn benn benn nag wala benn xar xadis ja passé woon tim tudd na ba waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu loj ci xët yu gannaaw gi mu tudd ne tëbëskee na ñaari xar dem la xay ni dafay fekk ne jubluwul ci benn at bi ndax at bi mu aji moom tëbëskiwu ci waaye at dafa bëgg a wax ne at moom tëbëskee Medina it wala tëbëskee ne Medina am xat rey ñaari xar yi mel nii waaye duwul ni ci benn jotaay bi la ndax ku dem màkk moom aj waru ku aj waruwul nag terewul ne mun nga mun ngaa eh, ku ku ku dem màkk tabaski warul la ku tabaski warul nag terewul ne man nga tabaskil sa waa kër yi nga xam ne nekkul ci xaj léegi xadis ji ba tey li mu wax dañ ci xamee ne tawaaf moom wër kaaba gi moom bokk na ci chartaam tahaarat rawatina tahaarat xabas ta ñaari laab yépp war na ci tey jii nag boroom xam-xam yi oyofal nañ ci xades ne képp kuy wër gi njàppam wax nañ ne mun naa wër rek ndax fi naa nii nii mbiri aj xatee booy génn ci kaaba gi da da ngay ñëwaat te am na ñoo xam ne léeg-léeg eh, garde njàpp daf leen di jafe nit mën naa def ci loolu mën naa am mu def ci loolu bés te mbiram du soti kooku boobaa ñu mel noonu lañ ja gan ngay jàppandala lii waaye jigéen joo xam ne dafa mbërëg daal kooku moom li li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digale am nañ ci wax wax ju bëri Ibn Qayyim na ci juróom-ñetti wax ci téeréem bi waaye li xew moo tax sax léegi-léegi am na jigéen ñoo xam ne bu ñuy dem aji comme ñu ngi tënku ci ay at ay avion yoo xam ne nii euh, réservation yoo xam ne mën naa mënuñ ko soppi wala ñu ànd ak àndandoor yoo xam ne nii mënuñoo des waris leen am na ñoo xam ne léegi ñu ngi dem sax di gis ay docteur yoo xam ne dañ leen di jox ay garab yoo xam ne dana téye seen bërëg ba xam ne duñ bërëg ci mhm. gis aji loolu it bu fekkee ne loraange nekk ci boobaa loraange yooyu nag docteur yi nga xam ne ñoo ñoo gën a xam ne loolu fekkee loraange nekku ci dara nekku ci ndax dana dimbale nit ci boo xam ne ni dëkkuloo màkka mën loo tool rek te léeg am ñoo xam ne seen bërëg dafay dafay gudd mën nañoo ñàkk a mën a toog di ko xaar ci loolu boobaa solution bu mel noonu dana kii waaye am na yeneen yoo xam ne ñoom ñu ngi ko tudd dañ ko tudd rek ci yaatu xel di ko kenn ci Abu Bakrata radiyallahu anhu jëlee wax ne seen jamono wër na kem meloon bés ba yàlla bindee asamaan ak suuf at mi fukki at fukki weer ak ñaar arab yi dañ daan soppi weer yi ci seen jamono ngir rek bu fekkee ne weer wi weer yi nga xam ne daganut ci ñoom ñu xare ci ñi jël weer tuddee ko lum dawut ba weer yi jaxasoo ba nga xam ne da nga toll ñu ne ñu ngi ci muharram fekk nekkuñ ci muharram ñu ngi ci zulhijja fekk nekkuñ ci zulhijja at mi yonent di aj nag dafa yàlla dafa dellooxaat jamono mu toll fa mu toll woon weer yi toll fa mu toll woon mu ne weer yi jamono waraat na ba mel na meloon delluwaat na ci cosaan at mi fukki weer ak ñaar la am na ci ñeneenti weer yoo xam ne weer yi yuñ xormaal la yoo xam ne kenn du ci xare ñett yi dañoo tegalante mooy ñetti weeri aji zilqaadata giñ nekk ni ak hijja ak muharram ak rajab bi nga xamne momit toftalante wut ak ñom waye ci ashurul hurum la bok nga xamne mo nek ci diggante jumada saaniya ak ak jumada ak sha'ban mu laajte yonent bi ne ban weer mooy weer le ñom ñu ne ko yàlla bi yonent mo gëna xam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppi bañ foog ne fay soppi turi weer wi xanaa nekkuñ ci zilxijja mooy weeri aj weeri tabaski ñu ne a kay balee anaam kay mu ne ban dëkk mooy bile dëkk ñu ne yàlla ak yonentam moo gën a xam mu ne mu noppi sallallahu alayhi wa sallama bañ njortu ne daf koy tuddee beneen tur bu du turam dafay changer tur bi ne xanaa nekkuñ ci ci al baldatu manam nekkuñ ci baldul haram makka ñu ne kay mu ne ban bisay bés le ñu ne ko yàlla ka yonentam ñoo gëna xam mu ne mu noppi bañ foog ne daf koy utal wenen tour mu ne ndax tay du yawmun nahri bés bi ñuy loj mooy bésëb tabaski ñii ajiwul ñoo ci tabaski ñii aji rey ci seen hëddi yi ñi ne a ah, mooy fukki fan ci weeru tabaski ñu taxawee arafa ba ci suba si yonentu ne seeni deret seeni alal Muhammad mi riwaaya xadiis bi mune ne njortu naa teg na ci seen der lépp xaraam na comme ni bés bi xaraamee comme ni seen bés bi xaraamee ci seen dëkk bi ci seen weer wi kon yàlla xaraamal na tuur dereti julit yàlla xaraamal na derab julit comme ni ma xaraamalee tim bés dëkk booba ak bés booba yontu ne dangeen dajeek seen boroom dana leen laaj seeni jëf waaye ngeen la bu leen dellu sama gannaaw nekk wéy réer yoo xam ne ñenn ci ñoom dañuy dóor doqi ñenn di reyante bu leen réer sama gannaaw di reyante yéen ci seen biir na ngeen xam ne li ngeen di def yàlla dana leen ko laaj bu leen dellu nag sama gannaaw nekk ñu réer di rayante nga xam ne waxtu boo gisee jullit ñi ñuy rayante xam nga réer nañ mu ne na jotal aji teew na jotal ki fàddu yéen ñi fekkee la may wax na ko jotal jullit ñi nga xam ne fekkewuñ ko mu ne xamaana ñenn ñoo xam ne dañ leen a jotal wax ji ñi gën koo dégg ñenn ci ñi ko déggoon ne ndax jotal naa wax baat boobu ñaari yoon ci xutba yonent wi ci xajam la xutba googu saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñi ko fekkee woon wax nañ ne amul dara lu baay lu yonentu bàyyi ci luy ñëw wala lu war a xew lu may wax na ko ci xutbaam googu ku takk-takk nga ku fàtte-fàtte nga gannaaw ga xutba googu paase lépp lu xeweti ci xew-xew yi nga xam ne ni luñ war a fuglu la bu ñëwee rek ci la ñuy door a xam ne lii yonent bi waxoon na ko bés boobu mu taxawee foofu comme nag li war a xew yépp waxoon na ko lii ñëw waxoon na ko lii am waxoon na ko ku takk takk nga ku fàtte yaa fàtte waaye terewul am na loolu nag len lañ ci jànge dañ ci jàngee ne li nga xam ne moom la waxoon foofu lépp bu ne lépp force la ci ñëpp ñi war koo jot waaye bu fekkoon ne dafa nekk lépp di force ci ñëpp ñi war koo jot kon duñ ko fàtte faw dinañ tënk lépp ci bunt loolu nag ngay la ñuy borom xam-xam yi di xamee ne yenn yi nga xam ne ci ay may yàlla yenn yi nga xam ne ci ay dégg la yenn yi nga xam ne ci ilmu suluk ci ci yooni góor ñi la du ñàkk mukk ne yonentu ba wax na ko foofa waaye euh, buñ koy jotu ci ñi nga xam ne ñooy jottali tim dafay dugg rek ci buntab ku takk-takk nga ku fàtte fàtte na waaye moom yonent bi bàyyiwul dara loo xam ne nii war naa ñëw luy jëriñ lu may tudd na ko luy lor lu may euh, moytuloo na ko صلى الله عليه وسلم وكرمه